rafetal ci mbokk gi jafe naa fi toll ni faw ma wax ci alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain bokki taarixu Sénégal al aam noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara di nuyu tam képp koo xam ni euh, durus yi ñu fi def dox na ba egsi ci yow noo ngi lay nuyu di la ziyaara di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala defal ñu ixlaas defal ñu itam ak sabaat ak sax defal ñu itam ak tawfiq ba yéene ji am ci jàngale taarix dara dara takku ko jóg lu may jàngale taarixu réew mi ci ay référence yu wóor ñu am ko ca eh, mbirum taarix nag wolof naan ko mboor muy histoire dafay fànn goo xamante ni amuk soloom dafa jéggi dayo tey jii nag ci lañ bëgg a def benn introduction boo xamante ni liñ ci bëgg a le rek mooy ni ñu ko tiitre mooy ahamiyatu taariq wa faidatuhu l uzma maanaam importance bi nga xamante ni taarix am na ko ak njariñ lu rëy li mu làmboo doyoon na rek ñu ne suñ borom subhanahu taarixu anbiya yi doon nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ni dëgëral sa xol ba nga am xol bu bu sax am esprit tranquille am xol bu dal moo tax ma la koy jottali da ko ni wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nusabbitu bihi fuaadak lii ñu lay nettali ci xew-xewi yonent yële jiitu woon yëpp dañu koy def ngir saxal sa xol ci mooy esprit tranquille loolu dooy doon wéttal ci moom doon lu koy gunge loo ni fu daawa bi toll ci ay tartar ak i jafe-jafe bu fàttali ko xisasul ambiya fàttali ko fa yusufa jaar ak magam ya fàttali ko fa ayuba jaar ak tawatam ga fàttaliku fa yunusa jaar ak jënam wa fàttaliku fa Musa jaar ak firawda fàttaliku fa Ismail jaar ak baayam ba ko bëggoona tër rend ci ndigalul suñu boroom waaye fàttaliku fa Suleymaan alayhi salaam jaar ak jinne ya fàttaliku fa Daawuda jaar ak Taalut bu boobaa wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul maa nu sabbitu bihi fu'aadak day dal di day dal di taxaw doyoon na rek ci ñu xam le ni suñu borom subhanahu wa moo njëkk tazkiya ilmu taarix ci aaya jooji ñu wax bala ñoo ñëw ci njariñal taarix nag dañuy wax taarix moy lan lan mooy taarix taarix di mboor buñ ko waxoon ci wàllu ci lugal arabiya lu muy tekki baatub taarix boroom xam-xam yi gën a gàttal dañoo wax rek ni taarix mooy taariful waqt mooy xam le waxtu maanaam le dat joxe ab dat ci événement bu mës a xew loolu mooy taarix bu demee moom loolu rek la wax muy wax ju gàtt ju leer arab bu ne arraqtu wala warraqtu maanaam ñaar yëpp dañ koy wax lugatu banu tamim day wax warraqtu lugatu qays day wax arraqtu ci ñi xam lan mooy lugal arabiya ci ay ci ay forme yu wuute ñu ne ko jëlee ci baatu al iraq iraqa wala araqa dañ koy wax ñaar yëpp la wax iraqa wala araqa dañ naan mooy nag bu ndaw bu bees ñu ne baat bi foofu la jóge kon loolu dañ nga ciy dégge ni ñiy wax ni baat bi baatu taarix du baatu arab ci cosaan waaye baatub ajam la baatub ajam la boo xam ni borom xam-xam yi dañ koo dugal ci maanaam dañu ko dugal ci dictionnaire arab yi waaye cosaanal baat bi baatu grec la wax jooju wérut wax jooju wérul ndax al alfaazul ajamiya duñ am ishtiqaaq ci lugal arabiya bépp baat boo gis bépp kalima mu am ishtiqaaq bu wér buy dellu ci al arabiya baat boobu baatu arab la kon li wér mooy kalimatu taarix baatu taarix kalimatun arabiya baatub arab la bu wér wér wax naa leen ni banu tamim dañuy wax warraqtul kitaaba tawriqan boo demee ci lugat qays ñoom dañ naan arraqtul kitaaba taariqan teqali boobu al asmaa yi def na ko ci leeral gi muy leeral ci jëmhërat lugaat kon bu fekkente ni luga la loolu jarul ñu ciy sonn genn coono gi waaye li nga xamante ni moo ñu gën a soxal mooy lan mooy taarix ci bu boroom xam-xami taarix waxee taarix loolu la ñuy tuddee taarifu taarix ci istilaax boroom xam-xam yi dañoo wax ni fannun yubxasu fiihi an waqaiu zaman min xaysiyati taayin wa tawqit bal amma kaana fi laalam dañoo wax ni taarix de yi boo ko déggee fànn xam-xam la goo xam ni li ko tax mooy dañu ciy gëstu xew-xew ak événement yu xewoon ci jamono ci dëggantaan nu mu amee ak ci wan waxtu la am ak lamu lamboo làmboo ci ay mbir lamu mu ci ay mbir nag bari na loolu nag mën na daj àdduna wërngal këpp kon loolu mooy taarix ci al istilaax fannun yubxasu fiihi an waqaaiqi zaman min xaysiyati taayin wa tawqit bal amma kaana fi laalam comme ni nga xamee ni fànnu ilm maanaam matière bu ne ci wàllu xam-xam day am mawdu day am terrain boo xam ni ci lañ koy étudier masalan su ma la jox misaal ci matière bi ñu tuddee fànn gi ñu tuddee ilmu tibb muy la médecine médecine terrain bi ñu koy liggéeyee mooy yaramu doomu adama génn ko yaramu doomu aadama ak la làmboo ci ay coppax yu koy gaar ci lu naturel ak lu ñàkk naturel terrain boobu ci la ilmu tibb di liggéey taarix nag moom fu muy liggéey kon buñ la laajee mawdu ilmu taarix boroom xam-xami taarix dañoo wax ni al insaan wa zaman mooy nit ci boppam ak jamono kon taarix moom day téere boo xam ne ñaari feggu la am wet gi mooy doomi aadama ci boppam wet geneen gi mooy jamono doomu adama ànd gi mu jamono ya cay xew di xewaat boo ko boolee ñu wërngal kap loolu mooy mawdu ilmu taarix masala yi nga xamante ni moom la taarix di traité mooy axwaaluhuma almufassala lil juziyat taxta daairati al al aarida al mawjudatu lil insan wa fi zaman al imaamu saqaawi nee na masail yi nga xamante ni elmu taarix da koy traité mooy boo jëlee doomu aadama ak jamono seeni mbir ci manière buñu ñu seddale séddale ko ay xaaj ca xew-xew ya koy gaar ci jamono nee na loolu mooy masala yi nga xamante ni xam-xamu taarix daf koy lijjanti kon daal mbokki taarix ci gàttal wax nañ leen mooy lan wax nañ leen ci ban terrain lay joué lan mooy mawdu ilmu taarix wax leen yen masail ci la taarix di liggéey moom lay traité doog a ñëw ak yéen nag ci li ñuy tuddee fawaidu ilmu taarix maanaam njariñ yi nga xamante ni moom la xam-xamu taarix làmboo yan la làmboo fawaidu maanaam njariñ li nga xamante ni moom la xam-xamu taarix làmboo bala ñu cee dikk dëgg-dëgg dañuy yëkkati ay subaha yu nekk ci kanamu nit ñi nekk ci xel yenn nit ñi ndax am na koo xamante ni jàpp na ni mbirum taarix mbir la moo xamante ni li ko tax a jóg mooy dindi stress boo toogee ba jëmmi jamono nga stressé wu wala nga wéet nga daal di jël téere boo xam ne day wax ci taarix di liir ngir mu dindil la stress yi wala mu teggil la wéetaay yi maanaam mu mel ni ay léeb ay conte yoo xamante nii dañ la koy nettali muy ay léeb naan la bukkeeg lëkk la woon sàmba la woon ak diw muy lépp yoo xamante ni c'est imaginaire existé wul am na ñoo xam ne jàpp nañ ni looloo tax xam-xamu taarix jóg loolu yi nag képp koo xam ni moo nekk ci sam xel bo bu rëy la boo xamante ni pour nga jariñu ci taarix dana jafe loolu moo tax ibnul asir alxaafiz ibnul asir kàngam ci téeréem bu am solo boobu mu tudde alkaamil fi taarix daf ciy wax wax ju am solo dafa ni walaqad ra'aytu jamaatan mimman yaddaci almacrifata waddiraaya wa yazunnu bi nafsihi tabaxura fi alcilmi wa riwaaya يحتقر التاريخ ويذريها ويعرض عنها ويلغيها ظنا منه أن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار من وهذه حال من اقتصر على القشر دون اللب نظره وأصبح مقشلبا جوهره ومن رزقه الله تبعا سليما wa hadaahu siraatan mustaqiman alima anna fawaidaha kathira wa manafiaha aldunyawiya waluxrawiya jamma kathira wa ha nahnu nadkuru shay'an mimma dhahara lana fiha wa nakillu ila qarihati naadir fihi maarifata baaqiha waxam ji jaroon naa binde ak daay wurus daa joo xam ne wurus la lañ ko waroon a binde wax ju am solo la wax nee na gis naa mbooloo moo xam ni ña ngay woote woo xam ña ngay wootewoo woo xam taarix ngay woote ak dégg diine jàppe seen bopp ñu géeju ci fànni xam-xam ak i riwaaya waaye nga fekk leen te bu ñuy jëflante ci wàllu xam-xam ñu xeet lool fànn jiitu tudd gannaawal ko lool wan ko ginnaawit lool yëlëb ko sànni sax nag faf nee na li leen ko yóbbee mooy jàpp gi ñu jàpp ni njariñal taarix daal weesuwul nettali ay xissa ak xew-xew yu fi jaaroon njariñal taarix weesuwul waxtaan yu ñuy waxtaane ci buñ toogee war a léebante ci suñu biir nee na loolu nag mooy xaalub waa ji nga xamante ni ab gis-gisam dafa yem ca xollit ya te eggul dëggantaan ca digg ca mbir ma nee na képp koo xam ne yàlla defal na la xel mu set yàlla jubal la teg la ci siraatal mustaqim nee na da xam ne xam-xamu taarix njariñam kenn mënu koo takk ay fur wi yim lay apporteel boo xamee taarix fruit yim la mën a apporter ci adduna ak ci alaxira nee lu bari la ba baawaan saawaan nee dinaa la ci tuddal yenn li ci des bàyyi la nga mottali ko sa liiki ko wax mooy ibnul asir ci téeréem bi nga xamante ni mi ngi ko tuddee alkaamil fi taarix loolu mi ngi ko wax ci page neuf ci téere boobu ma leen wax bu ca dem da nga ko ca fekk ci mu jalladul awwal bu fekkonte ni nag dañoo bëgg a lim njariñ yi nga xamante ni xam-xamu taarix lamboo na ko dañuy tàmbalee ci wax ni taarix mooy ab tariqul waxiid lil ittilaa ala tazwiri fi lmakatibi mooy wenn yoon wi nga xamee ci lees mën a xame mbooleem sos ak kuraafaat yi nga xam ne aw nit dinañ ko njàmbaas ci seen mbind wala ñu di ko njàmbaas ci seen li ci ay xissa taarix mooy wenn yoon wi la mën a détecteel bindkat bii kat di bind ci événement sàngam wala muy bind ci jëmm sàngam di def biographie yam cee njàmbaas te du dëgg moo xam di ko dooleel wala di ko wàññi njàmbas yooyu nga xam ni mooy xuraafaati kese maanaam appareil bi koy détecte ba génneel la ko tegal la ko ci sa kanam nga xam ni lii du dëgg appareil boobu mooy elmu taarix loolu rek doyoon na ko sëkk ñu ne lii mooy njariñal taarix njariñ lii la am loolu da koy doy sëkk mu nekk ilmun sharif muy xam-xam bu tedd ndax bu ngeen seetloo maanaam doomu adama yi lu dul ñu ci suñu boroom yërëm ñu baree bari seeni passion seeni bànneex dafay feeñ ci seen jëflanteek doomu aadama yi bu ñu bëggee dal di lay takkal médaille yoo amut waaye bu ñu la noonoo dal di lay ràng ay musiba yu nekkul ci yow nga xam ni doomu aadama ji daanaka buy dox ci diggante ay ahbaab ak i xusama ci lay dox ay sopp yu ko sopp ay soppe yu ko sopp yoo xam ni ña ngi koy takkal médaille yu nekkul ci moom loolu taarix moo ko mën a teggi bis bu set nga dégg fi ñu waxal fi nit ngir jéem koo yëkkati waxal ko fi ay mbir yoo xamante ni maara di ci kawe ci ay dara jaat ci ay jëf yoo xamante ni moom fekkewul laalu ca ñu ne moom mooy résultat moo ko jëf moo tax ba nangam am fi moo tax ba lislaam egsi fi moo tax ba nangam jàmm ji ñuy dund ñu am ko di la ci ràbbal nag ay xisa yoo xamante ni laalewul ay xisa yoo xamante ni amul fondama di ko teg ngir gëm loola jëmm jooji nga xam ne ñu ngi woote jëm ci moom walla muy koo xamante ni ëmbal nañ ko ak nooneel di créer ay mbind di créer ay xissa yoo xam ne lañ ci jublu mooy diaboliser ko ci kanamu nit ñi ba tax ñu di ko ràng ay musiba yoo xamante ni dañuy wax ni résultat wu liggéeyam la moo ko fi indi yooyu nag muy ay xuraafaati kese appareil bi koy détecté ba wan lañu lii du dëgg di la ko tegal ci sa kanam benn par benn nga di ko làmb di ko daj di ko xool di ko gis appareil boobu mooy elmu taarix loolu moo taxoon bokki jullit yi al imaam Sufyaanu Thawri dafa daan wax ni lamma staamala ruwaatu al kadib istaamalna lahum taarix wax ju am solo ngoog nee na bi nga xamante ni ruwaat yi muy solokat yi nettalikat yi jël nañ lii di ay nar di ko jëfandikoo ci suñu kaw nee na ñun ñu dem jëli taarix jëfandikoo ko ci seen kaw détecter seen nar yooyu loolu moo tax mbokki jullit yi boroom xam-xam ba fóore ja Hammad ibnu dafa daan wax ni lam yustaan ala alkazabina bi misli taarix lam yustaan ala alkazabin bi misli taarix nee na dimbandikoowuñu ci kaw ñii nar ak fen dimbandikoowuñu ci seen kaw lu gën a efficace taarix mboolem arme booy jël di ko jëfandikoo ci kaw ñii nga xam ne ñooy soskat yi arme bi ci gën a efficace mooy taarix mbokk yi defe naa ni bi ma ko defee ci groupe pour Furqaan ci jamono yee ci ginnaaw muy la déportation à l'époque coloniale les bagnes coloniaux mbokk yi exposé boobu leeral na lu baree bare baree baree bare ci ay xuraafaat yu aw nit doon wax yoo xamante ni dara laalewu ci te loolu dafa fees dell ci réew mi bal dafa fees dell ci àdduna bi ay xuraafaat ay légende yoo xam ni dañ koo yàgg digtal suñuy nopp nga xam ni ba ngay nekk gone xàmmee ca nga ko dala dégg ay mag ay mukallaf di ko riwaaye ci sa kanam nga di ko dégg ci say nopp ba xëy nekk mu kallaf doon magum jëmm di ko dégg egg ci xaddu tawaatur ba kenn sañatu ko weddi te fekk amul dara ci fondement loolu dafa fees ci réew mi dell bal dafa fees ci àdduna dell loolu nag appareil bi koy détecté ba wan la ni lii du dëgg lee mooy dëgg loolu mooy xam-xamu taariix loolu moo tax ci muqaddimatu muslim benn riwaaya boo xamante ni dañ ko jële ci almualla ibnu urfaan mu wax ne xaddathana abu wail qaala xaraja alayna ibnu mas'ud bi siffin ibnu wail wax ñun kat ca bañ nekkee ci maarakatu siffin bis ibnu mas'ud génn tàmbali expliqué a abu nuaym ni ko waaw ataraahu bu'itha ba'da al-mawt xanaa ibnu Mas'ud moom dafa dee ba yàlla ba pare dekki xanaa ibnu Mas'ud dafa faatu ba noppi dekki maarakatu Siffin ibnu Mas'ud fekkiwu ko di wala dafa fàtte woon ni ibnu Mas'ud mi ngi faatu ci atum fanweer ak ñett ci gàddaay gi ñenn ñi fanweer ak ñaar ci gàddaay gi nga xam ni ñetti at lu jiitu faatu Usmaan ibnu Affan te maarakatu Siffin mi ngi xewee ci xilaafa ci xilaafa ali ibn abi taalib kon loolu taarix moo ko détecté xoolal bi nga xamante ni yahut yi maanaam yahutu xaybar jamono biñ toogee ba jëmmi jamono ñu xëy génne seen benn bataaxal benn lettre boo xamante ni këyit gu yàgg la boo ko gisee ñu bind ko ca bind yu njëkk ya wax ni yonent bi saai moo leen ko bindoon lettre bi yonent bi saai sallam moo leen ko bindoon ñoom waa xaybar ci seereb saxaaba yi daal di ciy bind turu saxaaba yu bari wax ni ñoo ko seere keroog ci fatxu xaybar ci la leen yonent bi saai sallam bindal lettre boobu te Ali ibn Abi Talib la ko binduloo ci loxol boppam di leen teggil lii di tudd jizya galak googu nga xamante dañ ko war di joxe muy impo bu ñu war di fay annuellement ñu ne jizya boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog fatxu Xaybar dafa sàkk ci Ali ni ko bindal ma ko Ali bindal leen ko teggil leen ko ah ñu daal di jël lettre boobu yi nag loolu yàgg na indi ko ci raisu ruasa Abul Qasim nga xam ne moo nekkoon waziru al qaim ci jamono yooyu a ah, mbir ma nag dal di doon kiimaan yonent bi sallallahu lam bindu bataaxal te Ali ko bindu loo saxaaba yi ñu ci def sintur tur ñoo ko fekke te ñoo ko seere ci yonent bi teggil na leen jizya ah loolu dama suñu koo dégg waaye nag alqasim wazir daal di wax ni comme borom xam yaa ngi fi mu arrix yaa ngi fi nañ leen ko jox ñu daal di jël bataaxal boobu yóbbu ko ci alxaafiz alxatib albaghdaadi biñ ko joxe alxatib moo daal di xool lettre beeg saxaaba yiñ ci def ni ñoo ko seere mu daal di ñu ko yaa amir haza muzawwar lii falsification la lii du dëgg lii luñ créé la lettre bi du dëgg ay nar la dara wéru ah foofu na kii daal di taxaw yahutu xaybar seen kilifa yaa ngi taxaw ñoom ñëpp doon ay kilifa yu mag notable yaa ngi taxaw a amirul muminin a ngi taxaw alxatibul baghdadi mi ngi taxaw ñi leen lii du dëgg wérut ah kilifa yahut yi ni ko dëgg la lii ba muy am fekke woo suñuy maam lañu doon ci ñoom lettre bi di ko garder génération par génération bam mu ci ñun yonent bi moo ko bindoon keroog fatu Xaybar saxaaba yi nga gis seeni tur ñoo ci nekk Ali ibn Abi Talib la ko binduloo alxatib ni leen du dëgg amirul muminin ni ko waaw alxatib ku teggi dara nag danga nga fay teg dara yow mi ni du dëgg te wax dëgg fekke foo ko teg alxatib ni ko xoolal saxaaba yi ñu wax ni ñoo ko fekk xoolal ci biir danga ci gis Muawiya ibn Abi Sufyaan fatxu Taybar kañ la woon ak Muawiya ibn Abi Sufyaan kañ la dugg ci lislaam fatxu Taybar mi ngi am ci sana saba atum juróom-ñaareel at ci gàddaay gi Muaz ibn Jabal déggal kii nga xamante ni mooy Muawiya ibn Abi Sufyaan kañ la dugg ci lislaam keroog yow mu fatt mag kon fatt xeebar bi muy am Muawiya duggagul ci lislaam bay seede leen la ñu ko amir bankal sa baaraam bank baaraamam mu ne ko bokk na ci saxaaba yi ñu def seen tournée ñoo ko seede Saad ibn Muaz mu ne ko waaw mu ne ko Saad ibn Muaz kañ la faatu keroog yow mu bani Qurayza keroog ci xare xandax bi bani Qurayza woree yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ubbil waa Ghatafaan ak Quraysh pour ñu jaar fa xeex boobu ñu doon sànnante ay fet xeex boobu ci la sa Muaz Saad ibn Muaz faatu loolu paase na ba mu am ñaari at fatu Xaybar door am kon moom fekku ko fi Saad ibn moom yi nga xam ne faatu na ñaari at fatu Xaybar door am boole nañ ko ci saxaaba yi seede nan la ko mën a seetee te faatu na lu jiitu xeebar di am kon lii taswiir la amirul muminin ni ko wax nga dëgg yahud yi sa ngéem ñu joxaat leen seenu bataaxal ni leen lii yéen a ko créé mbokki jullit ndax loolu boroom xam-xame fiq kese bu àndul ak dara ci taarix mënoon naa lijjanti loolu ndax alim tafsir bu àndul ak dara ci taarix mënoon naa lijjanti loolu kon lim leen wax ni taarix mooy appareil bi détecté sos yi xuraafaat yi ñu dugal ci mbir yi ci mbind yi ci wax yi ci nettali yi te du dëgg appareil bi koy détecté mooy ilmu taarix mbokk yi xam naa kon introduction bi jeexagul waaye dañuy taxawlu foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu baarakallahu fawma waxti nii na xel yi daal di dellu fetal ci mbokk gi jafe naa fiñ tollu nii faw ma wax ci lii ndax xel yi daa dellu si